président Macky sàll dafa yebal ca kaso ba dafa yónni ay nit nit yooyu waxuñu président Ousmane Sonko ne président Macky sàll moo leen yebal ñu dugg ci kaso bi ne ko dañoo bëgg nga am liberté waaye nga génn Sénégal xaw ma ndax dégg ngeen ma dañoo bëgg dinañ la génne kaso waaye da ngay génn Sénégal balaa ñuy gisanteeg moom ci biir kaso def nañ lu ñu mën. ci biir hôpital ci biir grève de la faim bi pour mu recevoir leen mu ne moo lànk ñu ne ko Ousmane Sonko dañoo bëgg nga génn kaso da ngay génn Sénégal nga génn kaso Ousmane Sonko ne leen feebaruma génnuma Sénégal ñu ne ko da ngay génn Sénégal dem faju ji waaw dinañ wax askanu Sénégal ne da ngaa feebar dañ la génnee Sénégal génnee la kaso pour nga dem faju ji mu ne leen man feebaruma lenn rek moo ma dal sama ñànkatang laa nam damaa gëj a lekk te ku gëj a lekk boo ko xoolee di nga ko xàmmee mu ne leen génnuma Sénégal ma buggoon nag wax patriote wax askanu Sénégal fi ngeen jàpp ci Ousmane Sonko foofu la bu leen teggi seen loxo bu leen teggi seen tànk te Ousmane Sonko waruñoo gën a gore bu nekkoon keneen nangu na génn Sénégal mu ne man génnuma Sénégal bu dee condition bi pour génn te amul lu ma def mooy génn Sénégal génnuma kaso lolu nak amna ay weer pexé yoyu président Macky Sall nekkoon ngir génné président Ousmane Sonko ci kasso ci pexé yoyu la nekk ba tey moo tax ngeen di dégg baat yu bari dam bëgg bu baax ngeen dégg ma baat yu bari ngeen di dégg mom mu ngi tok fu mu tok rek waxugul dara mënugul wax pexé yoyu ñu pour génné ko kaso génné walé ko Sénégal niñ ko défé won pour kenen président président Ousmane Sonko lank ba teud ci souf ci pexe yoyu lañu wëy ba fan yi passé waxtu yi passé ngeen di dégg ay baat yu bari nan li am nak li am nak li am nak nonu ngeen di wax bi mu commencé yag na te président Ousmane Sonko dafa lank dafa bañ président Ousmane Sonko c'est un homme de refus c'est un homme de principe président Ousmane Sonko du kuy daw gisuma lu muy daw du kuy ragal gisuma lu muy ragal donc nous, je ma bëgg nous patriotes dal ñu ànd ak nous ñu tek, wax bu joté, wax dina Buma rek ngeen war a kon bu kenn jaxlé, bu kenn bu kenn euh, post Facebooku kenn bu kenn falé li nit di wax radio ak télé di jema deru Ousmane Sonko askan wi dafa mobiliser wu ne ma lank ma bañ duñu def coup d'état duñu randal élection lolu mo tital président Macky Sall ba bugg fi indi diversion ba nan xawma ay amnistie ay dialogue ay lenen c'est de la diversion ñun li nga xamné ci lañu wara focus moy ci lu wara focus moy élection day am 25 février président Macky Sall 2 février 2 mars 2 avril jéxal na ci bop réew mi bu Ousmane Sonko moko war bu Ousmane Sonko génne ko moko war bu libérer les mille et quelques détenus politiques moko war bu len leen génnewul moo war ndaxte da leen jàpp ñoom ñëpp ci lo xamné du dëgg du yoon ñun nañu focus élection présidentielle 25 février nañu focus ci 2 avril moy bëss bu mujj ci président Macky Sall 3 avril nak du ko fi fekk bu ko fi fekkee ñu dem délogé ko pale waxoon naa France